Sidya Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. nga ji di uh-huh, nga jiite euh, fédération générale des travailleurs du Sénégal FGTS tey jii Sénégal mbas mi euh, li nga xam ne mooy cas yi gën na yokk tey liggéeykatu santé lan nga am comme cri de cœur bi nga xam ne war nga koo jàllale. di jël maladie en charge di leen faj ñu bëri am nañu contracté Covid bi ah am na ñoo xam ne faat nañ seen bakkan donc war nañu gën a sawar ñu bañ a découragé travailleurs parce que bu leen découragé nag kan moo leen di faj kan moo leen di faj kan donc mesures yi ñu war a jël yëpp dañ ko war a jëbal ci liggéeykat yi jox leen ay protection équipement protection individuelle bi doy jox leen ay gants jox leen ay masque suñ ko defee nit ñi mën a liggéey mais bu ñu ko deful nag ay problème du mooy am ensuite ñun li ñu gis mooy njiitu réew mi dafa ne dafay motiver personnel moo tax ñu koy li ñu ñu tudd prime covid mhm. mais prime boobu li mu ñëwee xaj ak seen lañ def maanaam ku mu am ndey ak ku mu amul ndey jox nañu waa état seen prime waa collectivité locale yi nga xam ne ñoo nekk santé jox ñu leen dara mhm. donc je crois loolu vraiment dañ koy dénoncer ba léegi laaluñu loolu du yoon wax nañu yuux nañu te dinañ dem ci grève bu fekkente ni la la continuer danañ dem grève fan yii ñëw parce que préavis bi déposé nañ donc je vraiment mais yow nag ngay mën euh, régler secteur bi te ñi nga xam ne ñooy ndey mbir li maanaam liggéeykat yi ñi nga xam ne leen ñooy faj nit ñi doo jox jumtukaay doo leen motiver loolu defe naa ne loolu irresponsabilité la boo xam ne ñu ngi koy dénoncer ba ci kanam yàlla ci say biir war yaa ngi ne dañoo dañoo dañoo maanaam dañoo war a équiper personnel santé bi kon bu ma la déggee ngay wax ñaareelu euh, vague bi ñuy wax dafa mel ni personnel euh, santé bi la ngeen doon ñaxtu première vague bi dafa mel ni moo am ba tey. ba tey moo am ma ne yéen ay journaliste ngeen mën nañu terrain bi xam nga ñun bu ñu waxee rek ñu def ne dañu lu ñu neex ngeen dem ci centre santé yi hôpitaux yi ngeen enquête laaj fan la ñu ci équipement yi ak yeneen ak yeneen di ngeen dégg. la di wax directement def naa loolu moom moo gën a moom laa leen di conseiller parce que ñun bu ñu waxee rek ñu ne dañuy gaz rek ñii dañu mën a gaz lépp a ngi en place da ngay dem ay zone yoo xamante ne si région yi partout ay Matam côté yi yëpp ay difficulté dañu donc je crois que vraiment war nañ góorgóorlu ba pour que ñu enrayer maanaam gagné combat virus lépp lu waay moom en terme de droit ñu def ko lépp luy laaj équipement ñu def ko sinon ay ji ay jafe-jafe lañ jëm te defe naa ne loolu Sénégal population yi mérité ñu ñu bàyyi leen nii poids contact yi di avancé cas kii di avancé donc je crois que euh, loolu lay conseil autorités yi sanitaire mhm. discours dafa doy ah ay show télévisé di woote fii ay ndaje ay conférence de presse lu jeex amul njëriñ lu am njëriñ li ñu la jox jumtukaay ñu la jox pouvoir bu ñu la jox nga utiliser ko bu askan bi nekk ci ay tolof tolof nga protéger sànq waxuñu ko muy vaccin yi tey jii personnel de santé bi bokk ci ñi nga xam ne nee nañ bu fi egsee euh, dinañ bokk ci ñi koy njëkk a jëfandikoo luy sa xalaat ci mbir mi. waaw ah, loolu bu amee loolu lu baax la parce que euh, personnel santé bi comme moo nekk en première li ñu ko commencé par ñooñu def naa loolu lu baax la ah personne de santé bi ak euh, ñi nga xam ne ñooy ay mag. loolu la ñuy Europe noonu la ñuy defee dañu ne ñu nga xam ne ñu ngi santé yëpp dañu ne war a aar. pour que ñooñu ñu bañ a contracté parce que comme na la ko waxee ñooñu buñ contracté mais paj dootul am te bu paj amulee mais affaire day grave mm-hmm. c'est-à-dire que dinañ am ay décès ay ay décès yu dul jeex defe naa ne vraiment war nañu seet mbir mi naka lañ koy doxalee pour que nit ñi suñu foowaay nekk nekk ci ko front bi contre la covid ñu jox la jumtuwaay bat ba pare motiver la ba pare véritablement créer conditions yi nga xamante ne mooy permettre environnement bi mu équipement yi nga xam ne dañ ko laaj ñu joxe buñ ko deful nag too rek moo nekk maanaam ay wax ju bëri te yooyu wax amul njëriñ ci contexte bi wax passé nañ ko jëf lañu ñu wax jëf waaw. monsieur ñu wax ci njeexital euh, li nga xam ne mooy mbas mi euh, ci première vague bi gisoon nañ ne liggéeykat yi ñu ci bëri euh, seen liggéey amoon na gàllankoor ndax nag situation économique dëkk bi tey jii ndax am ngeen benn étude bi nga xam ne dina def benn situation état des lieux ci ñan ñoo ci gën a impacté ci seen wàllum liggéey surtout ak deuxième vague bii fi nekk. waaw defe naa secteur bu ñu tuddee secteur comme. secteur tourisme hôtellerie bar restaurant mhm. ñooñu véritablement dañuy impacté bu baax parce que boo xoolee ñooñu seen activités yu bëri ci guddi lañ ko def wala ngoon après de ngoon ba ci et donc gis nañ ne boobu vraiment métti na loolu moo tax njiitu réew mi dana jàppale secteur boobu mu jox leen ay jumtukaay maanaam ay moyens lu leen di permettre ñu préserver employé mais gis nañ ne bu ñu joxee moyens yooyu dafa mel ni employeur nee nañu gisuñu dara et moo tax ñu ne état bi pour véritablement woon leen ni moom def na lu war a waram mhm. mais na publier di nga xam ne ñoo jot ci euh, moyens yooyu bu ko defee ni ñu xam ndax dëgg la wala du dëgg joxuñu la parce que boo demee employeurs yi commencé nañu licencier ñun keroog bu ñu def si suñu point de presse lañu vingt personnes yu dëgg Kaysar bu nekk Mermoz ñu ne dañu leen licencier parce que euh, li pour motif économique mais motif économique boo koy wax inspection du travail moo war a def étude moo war a xool ndax yow mi ngay wax nga def jël sa compte yi def ko à sa disposition mu vérifier ndax loolu am na sinon yaa ngi def gestion yaa ma neex yaa ngi def parparloo en tout cas yaa ngi jaay doole liggéeykat yoo xam te ne ñu ngi liggéeyal la depuis ñaari fukki at ñii fukki at ak juróom fii ñii et cetera donc je crois que vraiment loolu war nañ ci bay xel bu baax a baax aar liggéeykat yi moom ñu def bon en dehors de secteur mhm. euh, secteur boobu am na yeneen secteur économique yoo xam ne aussi am nañu ay jafe-jafe. Mhm. parce que boo xoolee tey secteur informel ah ñi nga ne seen commerce ci mbedd lañ nekk wala ñu extra ñoom ñëpp sont impactés. Mhm. loolu loolu loolu ni mooy euh, dinañ ba nit ñi révolté wu parce que gisatuñu dara duñu seen bopp ci kii c'est vrai que bu njëkk bi premier vague bi dañuy dimb distribué woon ceeb ay denrées ñu koy rafetlu. Mhm. pour jàppale doomu aadama mais ci vague yi waxaguñu lan la ñu prévoir donc loolu mooy wax ji est-ce que bu ñu naree dëgëral mesures yi il faut ñu accompagner population il faut ñu accompagner travailleurs yi. Mhm. su ko defee ñoom ñu mën a préserver le minimum c'est-à-dire dindal dundal seen njaboot toujours mais bu ñu ko defulee euh, loolu day indi sentiment de révolte parce que yow da ngeen mais c'est pas possible man kii feeyu ma état bi feeyu ma sama employeur ma. Mhm. mais lu tax may nangu ñu may teg ay mesures yoo xamante ne vraiment dafay menacer sécurité alimentaire sama njaboot donc je crois que euh, problème bi foofu la et justement si accompagnement le yéen ngeen yor benn kuréel bi nga xam ne dafa boole njaboote ay liggéeykat yu bëri yu secteur yëpp ndax euh, nam ngeen amal lu ngeen tek ngir jàppale ñooñu ngeen xam ne jàpp ngeen ne dañ leen licencier. waaw ñun kay ñu ngi cas yi ñu jot rek dañuy dem ci yoon. Mhm. toujours dañ jël dossier yi en main ñu dem ci yoon comme ça yoon dinañu àtte wax xamal ñu waxal ñu ne ñii respecté wuñu procédure de gestion yaa ma neex lañ def maanaam ah licencié nit ñi donc loolu moom yoon moo koy àtte incha allah te ñun képp ko am jafe-jafe nga seet ñu loolu mooy suñu première action mooy nañu saisir d' abord inspection régionale du travail bu ñu jógee ci inspection bu laajee ñu dem tribunal tribunal àtte juge bi wax ne est ce que lii jaadu na wala jaaduwul parce que moom dina am dina convoqué parti bu mhm. nekk mu jël renseignement yi mu war a jël bu boobaa mu arbitré su ko defee ñu mën a xam kan moo wax dëgg ak kan moo nekkul dëgg bu weesoo wàllum yoon sànq ci euh, kàllaame nasaraan yaa ngi wax ne euh, ba mayul di ngeen jëm sax ba ci ay doxu ñaxtu. mais bien loolu moom loolu ci activité syndicale pure la bokk. Mm-hmm. maanaam yëglu nañu point de presse wax nañu ne lii mooy suñu plan d'action parce que nag dañu toog di croiser les bras il faut ñu yëngatu il faut ñu yëngu yëngal ba mu saf saf donc problème bi mooy ci côté boobu ñun dañu jël seen matukaay su laajee ñuy dem ci dox ñaxtu ak yeneen mesures yoo xam ne aussi war nañ ko dinañ ko jël central syndical bi dinañ ci jël ànd ci ak syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie pour que véritablement ñu sensibiliser travailleurs yi génn yóoxu li nga xam ne moo leen di métti yóoxu menace yi nga xam ne mooy posé ci emploi yi su ko defee ñu dégg ñu autorités yi xam ne véritablement ñi il faut que ñu jóg seen mbir parce que bu ñu ko defulee nag ah trouble dana am te bu boobaa je crois que responsabilité bi il faut ñu situer ko fi ñu ko war a situer sànq yaa ngi wax ni euh, li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi am na ñi nga xam ne gàllankoor na seen liggéey kon bu ma la déggee ngay wax àndoo ci yan crainte nga am justement ci loi bi nga xam ne soppi nañ ko. bon xam nga couvre-feu moom euh, bu fekkee nañ ko jël mesure bi ci boppam couvre euh, kenn contre ko parce que bu fekkente ne day huit heures de temps lay durer. peut-être que période boobu bu def couvre-feu virus bi di circuler hmm. loolu normal donc je pense yoo xamante ne couvre-feu mais man dama ne ci manière bi. Hmm. bu ñuy appliquer couvre-feu dañ war a informer askan bi teel xamal ko ne dañ ko commencé def bërëb sangam ak bës sangam. Hmm. heure sangam loolu la ñuy def en Europe gis nañ ñëpp gis nañu dañuy communiquer gouvernement ci boppam mooy ñoo taxaw ne décidé naa zone telle ma confiné ko wala zone telle ma def couvre-feu de telle heure à telle heure. Hmm. parce que mesure yu na mun nga def confinement mun nga def couvre et cetera et cetera donc mais loolu yow da nga koy jéeg ci kaw wax lan pour que nit ñi nangul la nit ñi comprendre mais gis nga ne même en Europe ñi dañuy kaas euh, gis nañ ne seen activité doxul ah ah boo jëlee yu mel ni que restaurant yi ah, les les les les intermittents du spectacle ñun ñëpp gis nañu commencé nañu fippu parce que dañuy affaire bi dafa métti ñoom mënoo def un an de crise ah di topp di continuer bu boobaa da ngay tëj donc je crois que loolu mooy menace bi moo gën a posé mais war nañ jël ay mesures pour protéger askan bi mais ci kaw ñu informer nit ñi à temps ci kaw véritablement ñu xool naka lañ koy teg mais affaire yi du da ngay jóg rek di décréter di dem rek yooyu réglé wul dara parce que nit ñi mën nañu vivre te bu ñu vivre day compliqué force de l'ordre yi nga xamante ne ñu ngi leen di rafetal ñu ngi ñu ngi saluer seen travail bi. Mm. parce que ñoom couvre-feu ñoom ci ñoo nekk ci sedd bi guddi ah bay seen jaboot ah ñoom tamit ay père de famille lañu ay travers lañu. ñoom ñooy nekk di surveiller nit donc loolu aussi il faut ñu xoolaat ko. Mhm. moo tax bu ñu impliqué nit ñi ci waxtaan yi ñu xool comité bi nga xamante ne mooy comité Covid bi ñu impliqué ñëpp ah secteur bi yëpp ñëw bu boobaa sottante xalaat mooy ñu permettre ñu régler ay problèmes yu bëri. am na coow lu fi nekkoon bu yàggul mu am benn ministre gu ko wax ñu bëri jàpp ne ballon de la muy suppression des villes tey jii seen position yéen ñi surtout nga xam ne da ngeen di défendre intéret travailleurs collectivités euh, locales yi. am nga état moom mooy dogal moo yore kaddu ko dogal. acte trois bu ñu ko defee man Sidya Ndiaye ak FGTS wàcc ci terminé d' accord ñu. Mhm. ni ñu ko bëgg a doxalee. day indi ay tolof tolof ay problème supprimer région yi liggéeykat yi bëri ñu transféré ci département yi mhm. au tey am na département yoo xam ne am nañu jafe-jafe pour fay ay salaire loolu la indi mooy département ba léegi depuis sept amul revenu maanaam amul fonds propre fiscalité locale propre amu ko mhm. koo xam ne ne amul loolu nga muy dund yaakaar ci état bi di ko jox loolu je crois que vraiment war nañ ko xoolaat commune d'arrondissement yi fi nekkoon ñu def leen commune de plein exercice ñooñu ba léegi am na ñoo xam ne attanuñu ah travailleurs yi pour seen sécurité sociale pour seen à la retraite pour également seen soins médicaux loolu violation droit travailleurs la yóbbu nañ ko fu ñu ko mënee yóbbu mais ba léegi di sotti moo tax ñu ne ville yi nga xam ne ñoo ko ne am importance en terme de personnel bu ñu bu ñu bu ñu ko saax saaxee rek. Mhm. dañuy indi ay torop torop saax saaxee moom war nañ ko moytu ñuy waxtaan convier liggéey bi ñoom na ay expert lañu xam nañ lan mooy décentralisation. waaye bu dee ay politiciens rek ñooy tëju lal seen plan def lu neex loolu du jal parce que nit ñi di pare nañu pour fippu du ñu nangu ñoo xamante ne euh, euh, dañuy décider rek di décréter te xamuñu ci benn euh, maîtrise sujet yi donc je crois que loolu aussi il faut ñu wax ko mu dégg ñu dégg ñun dañu ay politiciens waxuñu ne état amul prérogative réformée mm-hmm. mais ci kaw waxtaan ba juboo jël tous les trucs les problèmes en compte après les réformes mais bu fekkee ne dañuy anti précipité parce que dafa am agenda politique caché mais loolu ñu ngi koy ñawlu bu baax luñu xam ne loolu du jàll parce que nit nañ fi bu nañ ko lu tax duñu organiser référendum ci biir yooyu ñu laaj leen ndax d' accord nañ pour ñu supprimer lu tax duñ ko def alors yow wala autorité nga wala euh, président de la République yaakaar ne parce que am nga am nga pouvoir discrétionnel jël décret ngay décréter loo xamante ne suba dafay impacter négativement sur la vie des populations mais loolu kon nañ ko teg. d'accord Sidya Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci Eddie. ngay secrétaire général fédération générale des travailleurs du Sénégal FGTS euh, bokk tamit ci And Gueusseum merci beaucoup.